Euh, Papa Boy Djiné dama dégg sànq sa biir wax euh, nga ne danga dund lu metti euh, lan nga fa dund loo xamante ni metti na la wala lan nga fa dund loo xamante ni nit ñaa ngi dund te neexu leen te bëggoon nañ gis koo xamante ne da leen ciy jàppale wala bëggoon nañ gis ñoo xamante ne da leen ci utal solution lan lay doon. waaw man loolu nag dama si dama si dama si ñaanal sama benn bëroo muy Albès Albès rapport hmm. ndaxte Ndeysaan jamono jee passé déggante nañ téléphone. muy wax acte bu nice di ko jëmale ci kaso bi du ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm dooleel ko te maa si am tamit ak Mathia sama doomu ndey nday Mathia laa ak ñi nga xam ne ñoom la si àndal ñëpp Albes kaso bi li fa nekk yombul. waaye billaahi wallaahi taalaay boo nekkul jàmbaar doo dund doo dund kaso soo nekkul bayfaal doo dund kaso buñ nee nit diw na diw dem na kaso nag ñu bëri dootuñu la te dootuñu la respecté wala dootuñu la jox cër senegal nag ñun ñoo yor xel boobu ndaxte jàpp nañ ne boo demee kaso rek lu bon moo la fa yóbbu. tey bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi te erreur moo leen fa yóbbu du seen coobaree bopp bari na si te daay bi neexul lekk bi neexul néeg yi xat na. mais est-ce que ko nit ñi di waxee. ndaxte ki ma ki may waxal rek numéro bi ma woowee nii mu ngi sama téléphone bii rek Faya mu ngi niiru Campenal mu ngi Sambour 14 Sambour 14 100 lañ xamante woon. sama xarit sama benn gaañ tamit mu ngi si kaso bi moom laa bokkaloon sama problème maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm ba génnee ko foofu mu nekk parce que ñun yéene boobu rek la ñuy am si moom amuñu si moom beneen yéene bu dul boobu du lu yomb waaye autorité tey Sénégal gis nga feebar bii nga xam ne tey jii nii nii moom moo lëmb tey si dëkk bi sonal tey Sénégal feebar bu ko gën a yéeme bu ko gën a garaaw tey jii nii mu ngi ci Sénégal. te mu ëpp ci kaso bi. muy lan muy tuberculose. loolu du jeex ci kaso yi laa wax barki yonent bi te pourtant état wu Sénégal loolu mënoon na see jàpp bu baax a baax a baax baax a baax. lan moo ci kaso yi. am ñoo xam ne tey jii dañuy feebar nekk ci kaso bi dañuy am problème buñ jëndee garab du jeex ci hôpital bi. sa biir bi metti para paracétamol lañ lay jox sa bopp bi metti même chose sa tànk bi metti même chose loolu man dund naa ko ñetti at si kaso bi. kon tey état au loolu mën na see gis nga vaccin yi tey jii nii tey Macky Sall jéego yi mu ci def def si ay milliards dama koy ñaan ngir yàlla ak war a suuli bu lii yëpp jeexee na jaayantewaat ay milliards defaat ko si kaso bi ndax ñi nekk si kaso bi nekk ci jàmm. donte liñ leen di toppee ñoo ko def defuñu ko waaye nit ki boo ko téewee tamit war nga ko mën a teg ci condition bu baax pour mu mën a tëdd kasoom normal te xool tey ñu tëj ay envie xool ñu tëj ay 15 ans ay 20 ans 30 ans nga bëgg a nekk si néeg boo xam ne ay 250 personnes ñooy nekk si benn néeg loolu metti na tey am na ñoo xam ne tey jii nii ñu ci kaso bi. di tëdd ay trois mois rek laa leen wax boo leen waxoon feebaru coronavirus ak 3 mois yi des nii ñu bàyyi la nga génn ñu jël coronavirus génn ndaxte liberté moo gën a neex loo gis si àdduna kon état bi ni mu yëngatoo li mu def jaayante bi mu jaayante tey ci feebar bii nga xam ne moom moo lëmbe ci réew mi bu jàllee na jaayante tey ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si kaso yi ak daara yi te da gis daara yoo xam ne tey jii nii. situation bi ñuy nekk taalibe yi dañuy sonn tëddaay bi lekk bi autorité bi nañ nañ yooyu nañ ciy dox di ci fee yooyu te yooyu dafa am important. mais ñi fa nekk moom lan la ñuy gën a ëpp lu ñuy soxla wala lan nañuy ñuy gën a ëpp lu ñuy bëgg ko ñu leen koy offrir wala boog li leen ko dimbalee. waaw tey xam nga tey Jelmaan bëgg-bëggam bariwul ci biir parce que olof daa wax liberté tànk lay àndal. xaalis tànk lay àndal boo amee xaalis te mënoo dem amul chance ay million bu ñu la ko joxoon te mënoo génn fi nga toog ne amul chance amul benn chance nañ àtte ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si kaso bi ndax tëddaay bi yàgg na toogaay bi yàgg na nañ leen àtte parce que nit ki boo mu xam li mu tëdd rek moom après day noppalu quoi mais xam nga tey nit def ci kaso bi dix ans mënuñu ko àtte wala mu def ci kaso bi huit ans mënuñu ko àtte loolu c'est pas normal. nit ki soo ko attee rek mu xam li mu war a tëdd après day neex ci tëddaay bi mais nekk tey correctionnel dawal ci problème boo xam ne tey jii nii erreur moo la fa indi walla defoo ko wala dañ laa tuumaal nga nekk fa ay dix ans duñ la attee wala nga nekk fa huit ans duñ la attee loolu neexul metti na état bi na dox ci loolu jàppale tey jii nii nga xam ne ñoo nekk si kaso bi boo demee kaso ñu vidé la korok boo dawalee six enquête bi jeex ñu man li may wax chaque jour waxoon naa ko benn revue bee passé enquête boo xam ne day dem quatre ans cinq ans loolu c'est pas normal fekk yaa ngi tëdd rek atteeguñ la rek yaa ngi siir enquête nga war a def huit ans wala neuf ans ñu soog laa atte gars yi waroon nañ mën a def chaque quinze jours ñuy atte mala sumaay correctionnel yi chaque quinze jours chaque 15 jours ñu àtte correctionnel bu yàggee kaso bi dina xaw a changé si xataay bi àll bi nekk fii nii nii nii nii man la su xam nga amul benn njëriñ di ko jox étranger yi di jóge si yeneen réew yi di ñëw di ko jënd di fi def lu nekk nañ ko jéem a tabax def ko ay kaso parce que dund doomu aadama fekk yow yaa ngi dund erreur mënul ñàkk sa dund mais bu kaso yi yaatoo sax dina tane mais tey mënoo am problème tey. par exemple mu doon looy regretter mu doon lu la metti par exemple nga demaat kaso dundaat fa lu gën a metti problème bi nga xam ne moom moo lu fa indi muy si tëddaay bi muy si lekkaay bi soo fa ñëwee sa yaram seexlu ay góom ak lu nekk da koy am ndaxte tëddaay bi ndax ñëpp mënuñoo bokk tey wér gu yaram nit des fois day am feebar ngeen bokk benn lal bi ngeen di tëdd te doo ko mën a daw. loolu état bi na ci dox wax si te yàlla tax. ñi nekk ci kaso bi bu ñu leen nit ñi bu ñu leen fàtte daal. ñi fi nekk tey di xeexal tey Sonko wala di xeexal tey jii tamit xam nga ministres yi wala députés yi ñi si kaso bi nañ ci bokk parce que ñoom ci askan bi lañ bokk donte erreur moo leen fa yóbbu ñenn ñi ñenn ñi li ñuy def seen coobare bopp la waaye nañ leen di bàyyi xel di leen sóoraale di leen ñaanal tamit parce que wër na alxuraanul karim te boo demee si kaso bi tey jii nii Sénégal tey jii nii kenn dàqu leen jaamu yàlla boo demee si biir kaso bi billaay wallaay taalaay dañuy jaamu yàlla ba sonn am na ñoo xam ne jànguñu alxuraan fa lañ jàngee alxuraan ba wàcc am na ñoo xam ne lu baax lu ñu xam si kaso bi lañ ko xamee tamit état bi loolu tamit maa ngi ñaan. même biir kaso yi nañ fa jéem di programme ay liggéeyukaay yoo xam ne kat nit bu nekkee si kaso benn dix ans wala quinze ans su génnee dina génnaale ak métier muy menuisier bi baax na soudeur métallique bi baax na tailleur bi baax na mécanicien bi baax na mais kaso bi tey lu lu ma lu ma tey six mille personnes ñu fee nekk cinquante personnes yi ñooy génn employé ñu si ñëpp dañuy xëy di toog. da ngay am métier sax ñëw si kaso bi dafa vingt ans métier mi dem tëddaay bu yàgg loolu kaso bi maanaam war na mën a am ci biir kaso bi ay liggéeyukaay yoo xam ne kat bu fekkee da nga liggéey mécanicien nga am problème nga dem foofu soo demee xam nga donte yaa ngi tëdd problème mais di nga continuer di jàngale si métier. su fekkee amoo woon métier boo demee kaso tey boo fekkee atelier tailleur wala nga fekk fa tey tôlier wala soudal métallique wala menuisier no boo fa jàngee métier temps bi nga fa war a def lu mu gàtt gàtt di nga fa am loo faratu loo xam ne boo génnee loolu mun na laa dimbali sa àdduna am na ñoo xam ne tey erreur la ñuy tëdd si kaso erreur bu rëy la ñuy tëdd si kaso xamuñu lu leen yóbbu foofu maa ngi nuyu Albès bu baax li tax ma koy nuyu nag ki ñu boole suma xarit la suma doomu ndey la Mathia Pere la ndeysaan man nag moom ñu waxtaan moo am ay projet yoo xam ne bëgg na ko jëmale ko ci kaso yi te man wax dëgg yàlla côté woowu ku ma ci woo. ak ku ci wóol bu ma ko yëgee man dama ciy ñëw taxaw ci lu ma ci mën ak lu ma ci mënul ma def ko si. Euh, pour question bu mujj bi lan ngay wax ñi nga xamante ni ku dugg kaso ba génn boo génnee ñu lay daw wala ñu beddi la lan nga leen di wax. waa xam nga tey Sénégal ba tey damay waxaat rek loolu su ñun la nekk. cadre nga dem kaso ñëw de yow da ngay nekk fii nga nekk rek di sañse di lekk lu neex sax tey am na ñoo xam ne boo toogoon ak ñoom dañ lay xeeb duñ la nawloo. déglu naa si benn interview en interview Thione Seck mu koy wax mu ne Sénégal boo nii nit du dara mu gis boppam bu fekkee borom garaat la mu jëm la sànq bu fekkee borom xaalis la mu jëm la sànk bu fekkee borom xam-xam la mu jëm la sànk te pourtant nit du dara te kooko wax mu mer mbaa mu gis si boppam exemple doy na Thione te lu ne si àdduna lépp loo xam ne lu baax la lu nit war a am suñu borom defal na ko te suuf moo ko mujjee kon nañ delloo si suñu xel yi. te xam ne ñun ay doomu aadama lañ mënuñoo weesu leneen lu dul fii ku fi nekkul doomu aadama dëmm ngay doon wala jinne mbaa rab te yàlla ñu yàlla musal si loolu kon ñun ay doomaadama aadama na ay nit lañ nañu fonkante bëggante jàppante nit bu jugee kaso ak lu mu munti def xiir ko si sa bopp man am na ñoom dañuy génn kaso ñëw ba sama kër toog ak man waxtaan ak man ma jàppee la comme sama bopp conseil li ma conseil sama bopp. bu fekkee lu bon moo la fa yóbbuwoon góor waatal ba bu mu la fa yóbbu bu fekkee li la fa yóbbuwoon sa coobere bopp la na nga jaayantewaat ba bu mu la fa yóbbu su fekkee erreur la man natt ko sama bopp xam ne man lii moo ma dal te bi ma génnee tamit fii laa tegaat sama tànk pour moytu loolu. àdduna noonu lay doxee mais senegal xam nga kan lañ mën a conseil ki nekk Europe wala ku nekk France wala ku jóge bitim réew ñëw parce que ñu ngi séntu si moom benn lii. tukki yee bokk rek mais tukki la ndaxte kaso boo fa defee toog fa dix ans tukki la. yaa ngi ci benn réew boo xam ne munoo comprendre. Samet boo nekkee biir Samet da ngay yaakaar ne yaa ngi Congo xam nga Congo. merci te pourtant Samet mu ngi si biir ville Dakar mais boo fa nekkee dootoo dund Dakar dootoo dund Sénégal parce que tellement que ni bindoo ak ni mel. wër na rasulaay man dama doon nekk rëbës dem ba mujj dama yaakaar ne ma nekkatuma Sénégal barki arxuraan dama yaakaar ne nekkatuma Sénégal man su ay visite ñëwee nii nii may dem visite nii toog nii visite contact nii ma jàkkaaroog ay nit nii man su ma nee 100 biir Dakar la nekk man dama koy dama posé waat question sama bopp est-ce que 100 mètres biir Dakar la nekk. ñooy doo ko xam metti tellement que xam nga néegi xat façon doomu aadama bu nekk ngay gis façon doomu bu nekk ngay toogal. kon yàlla na yàlla def jàmm si kaso yëpp suñu borom dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ba suñu borom génnee waat leen ñu dellu si waat tey si askan bi ñu nekk parce que kenn ku nekk yaa xam loo mën a def yaa ngi julli di ñaan yàlla suñ borom génnee la foofu kon kooku bu génnee nit ñi war nañ ko mën a soutenir jàppale ko dooleel ko ba du delluwaat ci lu mu nekkoon parce que tey ak nit ki lu mën di def su génnoon tey nga jox ko métier bu baax boo xam ne bu weer deewee dina am lu mën a suturloo def si boppam ah man am naa yaakaar ne lu mu nekkoon dina si dina ko bàyyi man xam naa ay nit yi nit yoo xam ne tey jii nii nekkoon nañ tey ci ci town bi fii di def naka su dul noonu lu leen neexee nekk ay magum jëm bi ñu génnee instant bi ñu ngi jéem a xool beneen yoon buñ jaar pour réussir affaire bandi amul sens affaire banditisme amul sens kenn ku si nekk. maa ngi lay ñaanal boo ci nekkee suñu borom yàlla na suñu borom génnee si loolu li may wax nii nag am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee wala ñu gis ko dañuy xam Papa boo Djiné li muy wax bu baax yàlla na yàlla dolli sutura yàlla na yàlla musal ci seytaane yàlla na yàlla musal ci pexey noonu ak lépp loo xam ne lu bon la wala lu ñaaw yàlla def jàmm si réew mi defal ko ñëpp nag ku ma yéene jàmm maa ngi lay ñaanal jàmm ku ma yéenewul jàmm maa ngi lay ñaanal jàmm parce que jàmm si la lépp xaj. ku ma bëgg bëgg naa la ku ma bëggul bëgg naa la maa ngi ñaanal ñëpp suñu borom defal leen tawféex kattanal la dooleel la yow it di nuyu sama grand kañ nga xam ne moom moo waral tey émission bi di nuyu tamit promoteur bi nga xam ne moom moo tëgg suma combat di Fallou Ndiaye du nuyu staff am yëpp du nuyu tamit sama staff ñi si nekk ñëpp sama président fans club Mamour di nuyu nga xam ne ñoom ñoo nekk si ginnaawam ñëpp di nuyu nga xam ne ñoom ñoo may jàppale di nuyu waa Gunaas ñëpp nag rawatina fii waa Café ga fii. hôpital Roi bu dee ñëpp lycée am Maamlaay ñetti mbaar gunaas waal daan ñëpp bàyyi ma kenn ñetti mbaar ceddo parce que man li ma war moo bëri te su may bëri tey fu nekk la nit di jóge di ñëw rawatina sama gars yi Pikine ay ñoom ndeene xam nga ay ñoom lañ baa balañ sama gars yi Saliou Fall Pam xara ñi may wax nii Pikine lañ dëkk te su may nit lañ maa leen di siyaar bu baax rawatina Pam Minintu barki démb rek laa jóge gàlleem maa ngi koy nuyu bu baax ndax su ma nit la bu yàgg a yàgg a yàgg di nuyu waa bundi Pikine ñëpp nag mincu siidu moroon ñëpp mu këbëroo sama doomu nday sama gaan mag koy nuyu ak waa Pikine Ali Mango ma kenn ba waa Paaxu ndax sama goro fa la doon liggéeyee di nuyu sama jabar di nuyu seen waa kër di nuyu samay mag yëpp nag di nuyu ñi nga xam ne ñoo ak sama doomu ndey xam ne ñoom laay àndal di dox si làmb muy Boy bu ndaw Macha Perala dund xam nga Baye ma Ndiaye caat bu waalo Papa Dia Alioune Seye Junior ñooñu samay nit lañ damay déggante ñoom ay Boy Niang bu notaire xam nga mbëru géejawaay baa ma kenn ñu xam ne am sékk naa ak ñoom jàmm ñëpp ak ñu ma sékkalu jàmm ñëpp maa leen di sant leen gërëm di leen nuyu deenon Papa Boy moom tout simplement man ni laay dundee daal man jàmm laa xam laa pee laay dund ku tooñ jégal naa la te yàlla ku ma tooñ jégal naa la te yàlla tax ko ku képp koo xam ne jàpp nga ne man Papa Boy Djiné tooñ nga ma jégal naa la te yàlla tax ndax àdduna jeex na ba pare dund gi amatul solo jaratul ñaawoo jaratul def lu bon wër na alxuraanul karim nañ jàppante ñu fonkante bokku ndey bokku baay ndéegee nag place bi gis nga ni mu demee di ñaan yàlla suñu borom def ci jàmm rawatina sëñ Fallou bi mu ko dippee ndéegee création bi ñu ngi siy ñaanal suñu borom. yóbbu ko fu kawe kawe kawe kawe di wax képp ku bëgg lu baax yaa xam ñaw bu rafet yaa xam tisi bu rafet ba si gànnaar yi nga xam day wàññi biir xam nga ku ci bëgg lool ñëwal sa aajo dina faju waaw mais mënul ñàkk loo moom ak loo bokk luñ la boole du benn te añ dañ kaa moom yàlla na yàlla def jàmm si réew bi defal leen ko ci doole sëriñ bi mais autorité nañ bàyyi xel si kaso bi lu baax li ñuy def tey si réew mi nañ ci boole jelmaan yi di jënd ay laa di ko fa yóbbu man tey man aw ma moyen boobu de wax dëgg yàlla su ma ko amoon du ko demandé kenn nag di jënd ay ventilo di ko yóbbu ci kaso yi ay kafe kafe tuubaay yi suukar dañ koy gars dañ koy soxla si biir matelas ba si ay silement yi ni ti seet yi of gars dañ koy soxla war na maam Cheikh dañ koy soxla si biir kaso bi ti seet yeeg ay silement yi of yi gars dañ koy soxla ci biir kaso bi matelas de gars yi koy soxla ventilo gars yi ñu koy soxla di jënd ay médicaments ay garab di ko yóbbu foofu gars yi koy soxla kon ñi nga xam ne tey suñu borom may na leen ko ñu mën ko di jaamu yàlla rek mën nañoo jaamu yàlla si côté boobu war na Serigne Bamba parce que boo leen ko defalee sa bopp nga ko defal yow doonte demoo fa waaye boo fa demul di nga am mbokk bu fa nekk wala xarit bu fa nekk wala sa xaritu xarit bu fa nekk force la. Sénégal léegi koo gëj a gis rek koo gëj a gis laa wax koo gëj a gis bu fekkee deewul tukkiwul boo demee kase boo demee rëbës fekk ko fa maa la wax loolu. gis ngeen noonu lay demee xool lay waxee parce que dafa nekk loo xamante ni du ko dund nekk loo xamante ni gis na ñoo xamante ni dund nañ lu mel noonu moo tax li muy wax lépp dafa am ñi nga xamante ne nii am nañ moyen ñi nga xamante ne nii euh, dañuy jàppale ay doomu aadama bu ñuy fàtte ñooñu. parce que nekk na ñoo xamante ni amuñu kàddu amuñ ku leen waxal su ñu gisee koo xamante ni jot na dund lu mel noonu wala xam na la fa nekk su waxee nañu jàpp loolu ku ci mën a def yàlla dogal nga am ko te mën ko ñoo ngi lay ñaan nga jàppale leen ndax soxla nañ ko ndax am na ñoo xamante ni seen mbokk fàttal na leen am na ci ñoo xamante nii seen mbokk def nañ ba mënatuñu. loolu du jeex am na ñoo xam ne ñu dañuy yërëm seen i seen i waaju leen di yërëm am na ñoo xam ne seen i waaju dañ leen di yërëm yaay mujj obligé na sa toogal wala sa mag toogal ma dund ko parce que affaire góor la bari na tey jii ni bari na tey Samed li fa nekk lépp lépp si ay doomu aadama boo calculé tey visite yi am lépp lépp lépp barki Serigne Bamba Mbacke matul 500 visite kon ñaata personne ñoo fa des du jeex mais ay mais ministres yi nii premier ministre yi nii ministre de l'intérieur yooyu mun nañ di wàcc dugg si kaso bi dem di di visite gars yi di xool ministre dañoo war a dem di xool yi nekk si kaso bi gisoo yenn ministre yi boo leen jàppee bëgg a wax waxu kaso nii ñu jël seen bakkan teg ko si xam nañ li fa nekk. gis ngeen noonu lay def dañ koy dañ koy dañ koy dàq ba beneen yoon xam naa ne bu ñu toogee fii di ko waxtaan <laughs> gis nga xol lay waxee ndax li mu wax du ko dund waaye di jox dig daje ba beneen yoon ci wasaare jaa ngeen jëf.